tey yéen ñu ngi fii ci forum bi forum bu nga xamante ni waa DER ak seen partenariat euh, ñoo ko organisé euh, LuxDev donc tey ñun ñu ñu présenté fi suñu benn entreprise bu ñu woowee la laiterie du Delta. donc euh, la laiterie du Delta benn entreprise la bu nga xamante ni day jënd meew mi nga xamante ni jigéeni pël yi nekk Saint-Louis plus particulièrement village u Ndiaye ñooñu noonu lay lay dem di jàppale jàppale leen. moo tax mu dem samp foofu di jënd seen meew mi nga xamante ni des fois sax day bëri ba yàqu bu ñu koy jënd léegi di ko def euh, yaourt di ko def euh, les cahiers mais aussi di ko bëgg ko def ci kanam tuuti ak liggéeyu financement yi bu ne continuer maanaam ay fromage yoo xamante ni Sénégal dina si man a jariñ ñoom tamit dina leen dimbali même bi doon yàqu daaw daal doonul dootul yàqawti waaye aussi tamit ñoom dinañ mën a am lu leen di dimbali ñu mën a euh, mën a mën a seen bëgg-bëgg yi ñuy am ci wàllum xaalis yooyu ñu mën koo ñu mën koo satisfaire waaye aussi tamit dina leen permettre ñu mën a jënd yeneen nag wala mën leen a toppatoo ci loolu noonu. waaw DER bi def na ci liggéey bu am solo ndax DER bi permettre nañu local yi nga xamante ni ci la ñuy liggéeyee local yooyu DER bi moo ñu permettre ñu mën ko financer mais aussi matériels yi ñuy jënd yëpp maanaam ci financement DER boobu noonu avec ses partenaires moom moo tax ñu mën a tey jii li ñu taxawal ñu taxawal. Euh, tey entreprise Peewal ñoo xam te ni ñoom dañuy activer aussi euh, les poulets élevage euh, dans le dans la région de de Saint-Louis spécifiquement à à Richard Toll dañuy def lu ñu tudd embouche bovine et ovine c'est-à-dire que dañuy dem si marché luuma yi jëndaaye xar assez mature nga xam te ne màgguñu bu baax mais assez mature ñu jënd leen euh, engraissé leen si ay conditions yu baax ay conditions yu hygiénique après euh, yàpp bi dañ leen di abattre aussi si ay conditions yu baax yàpp bi ñu ñu jaay ko si domestique yi jaay ko sur place jaay ko aussi si restaurants yi léegi suñuy objectif mooy dans le court terme ak le long terme dañuy euh, dañuy implanter un peu ces régions de Saint-Louis dans plusieurs euh, secteurs comme ça nous menons a jaay si suñuy place bopp jaay yàpp bi c'est ay qualité yu comme ça nous avons un peu culture euh, surtout dans l'hygiène parce qu'on a tendance à voir maintenant la viande dans les rues euh, entourée de mouches et tout ça c'est pas très hygiénique si l'on est ñuy que des ak représentant entreprise bi ak e y a eu des investissements Bon, début, on a débuté avec euh, les poulets de chair. On s'est élargi. Après, nous on a commencé à pour le et tout ça. Et bon, on a une production de 1200 sujets. Mon, mon Bon, d'ailleurs, je peux dire que nous avons Bon, il nous a permis de, de nous développer et ils ont une certaine, commencé à une certaine visibilité et tout ça. Bon, instant on peut dire que, machallah, quoi, les choses sont en train de se développer.